nuyu conseil de la jeunesse président Pape Niass ngi ni toog responsable gaaru routière yi sëñ Mbodj moom itam ñëw na euh, police defe naa seen naa leen fi léegi ak Modou Diop Diaw ba ma ngi xam ne moo toogal Xodamatul Xadim suñu mbokk yi ñuy gunge ci tas xabaar muy leerlu TV ak waar wi TV tey nag ñu war a waxtaan waxtaan wu gàtt rek jërul muy gudd ndax mën naa nekk 30 minutes rek waxtaan woowatim day tege ci ñaari ndaje yuñ def lu jëm ci mbas mi nekk ci réew mi ak ci dëkk bi ak ci àdduna si yëpp bi ñu dajee ca Mbàkke préfet bi woote woon ndaje mu njëkk mi ci deuxième vague bi muy CDD ci comité départemental euh, de lutte contre les épidémies moom ci boppam mu jiite jiite woon ko woo maire yi woo kuréel yëpp dafa am benn mesure bu ñu fa jëloon mooy lu jëm ci marché yi nañ jàpp bis jours yu ne ñu jàpp bis pour ko acteurs yi ko seq ñu fexe ko bale rawatina nag marché occas rawatina marché occas ak gare routière bu bii bu Touba bi ñu ñëwaat fii réunion comité communal des épidémies mesure boobu ñu dëgëral ko fi ci kanam maire sëñ Abdou euh, euh, sëñ Sidi looloo tax ñu ne woon lépp loo gis ñi ko séq bala ñu ciy dugg nañ ko toog waxtaane ko loolu mooy solos réunion bi tey kon réunion bi réunion préparatoire la set setalu marché Ocass et éventuellement gare routière bi euh, commune bi nag moom taxawaayu dajale ak ndaji seex ak lépp loo xam ne wax nañ ko ñun ñu def suivi bi fexe ba loolu ñu dëggal ko ndax nag mbas mi ma ngi ci dëkk bi jërut ay bilan yooyu yëpp ñu ci dellusiwaat ñun ñu ñëpp ñoo toog fii médecin chef de district bi ñoom service d'hygiène ñii ak ñi ko séq ñépp ñu toog leeral ñu li fi nekk kon dénkaane bii xam ni def nañ ko pour ñu war a seetal marché Ocass ca loolu ñi ci jiitu mooy acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi ca seen njiit nekk ne toog di seeni seeni jeng moom itam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi ak ñépp ñim àndal muy waa ACIS muy également marchand ambulant buy ñëw itam day ànd ak ñoom ñëw mu nekk lu rafet réunion yi ñu jot a def nag saa bu ne am na ay engagement yoo xam ne Euh, jël ngeen ko wax ngeen ko ne da ngeen ko def commune beetim am na fu mu war a taxaw service d'hygiène lu jëm ci sec euh, lu jëm ci désinfection bi mel noonu looloo tax ñu woo leen UCG kenn ku ne xam na seen taxawaay tey ci wàllu mbalit gérer mbalit ci dëkk bi ñoom itam ñu ñëw gare routière aussi xale yi jigéen ñi même Touba ca kanam woowoon nañ leen pour ñu fekkee ndaje bi ak chef de village bi nga xam ne mooy chef de village Touba mosquée kon xawoon nañ koo yaatal tuuti yàlla dogal na nag ñi ci ëpp ñëw nañ tey mais ñi ci ëpp solo mooy yéen seeni yéen ñi nga xam ne yéen a nekk marché Ocass ci li ñuy def mairie beetim nag moom lenn lu ne man dama koy wax sans vraiment daw ci mooy lu ñuy def mairie bi moo war a taxaw ci kanam moo ci war a jiitu kuy ñëw ñëw ci looloo tax itam àlla ñang mi nga xam ne lu jëm ci loolu euh, ku ci jàmbaare la mu ñëw toog ñu fas yéene koo ànd ñun ñëpp kon li ñu war a waxtaanee rek ginnaaw bu ma ubbee kàddu yi mooy ñu xool yan moyen humain lañuy ñuy mobiliser ginnaaw buñ jàppee dat bi ca date bi defe naa ajjuma bii ñu jëm la waxoon comme nag ay tëj ak ay tëj ji da cee am kon loolootim wàllu sécurité da cay dugg looloo tim ñu waxtaane ko defe naa doon nañ sàkkootim chaque fois avant xuma après buñ ko satalee ba pare ñu pompe ko looloo tam koytaa ngi nii toog yan mesure lañ ci jël defe naa loolu suñ ko waxtaanee mën nañ koo gaaw tënk ci lu gaaw kenn ku ne lam cay def mu leer ñu àndandoo xàccandoo doorandoo ba lii ñu waxoon daal mu am ndax nag nit ñi ñu ci bari population yi li ñuy reproché mooy dañuy toog ci réunion waxtaan ba pare mais du am benn suivi lañ waxoon kenn du ci gis dara bii yoon nag xaw ma loolu daana am waaye lu ci bari ña ngi koy topp waxoon nañ fi nit ñi commencé def communication bi xale yi démb lañ ci jóge muy conseil de la jeunesse pour wax ak askan bi xam naa ne yéen itam am na lu ngeen di def mais également ku mel ne Modou Diop Diawbe ñoom itam ñu ngi jaar feneen chef de village yi boobu ba léegi bis bu set ma wootenteeg ñoom ne leen kat yéen itam dafa am rôle bu ngeen ci war a joué yéen itam waxtaan leen ak seenu askan dajale leen délégué yi dajale leen bàjjanu gox yi dajale leen xale yi ngeen wax ne leen kat mbas maa ngi ci dëkk bi di lëmbe te ñëpp ci war a taxaw kon loolu moom laa bëggoon a ubbee moom laa bëggoon a ubbee bi nag jërul ñu koy def réunion bu yàgg lool ndax it yi daa bari trente minutes quarante minutes mu jeex mais ci gàttal daal lii la daje bi ñu daje ñun kuréel yi xam ne dañ leen a segg mooy ñu waxtaane nu ñuy def ba àjjuma ñu bale marché bi ba mu set ñëpp teg seen bët nu ñuy def ba bis bi ñuy jàppal gare routière bi waa gare routière bi nu ñu leen di jàppale aussi pour ñu mën a bale gare ceer bi kon loolu moom rek laa ci bëggoon ubbee di sant ñëpp di gërëm ñépp di turu maire bu ko defee mën na maa jox sama kàddu gi sama mag mu wax bu paree moom ci côté commune bi bu paree marché Ocass ñoom itam waaye daal ñu jàpp ne tey li ñuy waxtaane daal mooy fexe ba kenn ku ne lim ci war a ni ci war a taxawe mu wax ko fii mu leer ñu tënk kon amitin mën naa tooge na ci kanam amitin ñoom mooy conseil consultatif de la femme ak conseil de la jeunesse kon ñoom ñaar ñëpp lañ convoqué woon am itam moo jiitu si mais soxna Astou mi ko jiite moom itam dégg naa léegi mu ne ma ngi ñëw. waaw waxoon naa léegi xudaamatul xad xadim Modou Diop Diaobé puisqu'on parle de sécurité et de veille ci lii ñuy def ndax nit ñeetim pour nga tëjloo leen ak yu mel noonu il faut nga informer leen naxaat ak ñoom wax leen li nga xam ne moo ci am yooyu yëpp nag ñun ñëpp. bu ñu mobiliser rek taxaw ci ginnaaw ñoom seeni jàppale leen ci fànna boobu defe naa mën liñ bëgg a def war nañ koo mën a def ca coow du jib bant du damm kon jërëjëf àlla euh, comme dañoo tàmbali di dérouler vraiment plan d'action bi jëm ci ci ci ci plan de riposte boobu euh, fenn fu ñu ci jëm fu ne rek ñenu fa yittewoo ñu war caa teew ñooña lañu ñu convoqué ni ko Mor waxee keroog bi ñu toogee fii li ñu njëkkoon a tudd mooy vraiment setalaat marché Ocass désinfecté ko dafa bokk ci béréb yi nga xam ne yaakaar naa la fay xëy di daje ci mbooloo ci dëkk bi wala ci département bi wala ci région bi wala ci Sénégal sax yaakaar naa ni bariwul lu fay mel noonu te xëy na lu mel noonu mooy waral vraiment virus bi di continuer di dox di topp nit ñi di tasaaroo di dugg ci kër yeeg fu ne gis nga. vraiment transmission communautaire yi ni mu yaatoo ni mu bare di multiplier rawatina suñu dëkk bi booba ba tey bi ñu jógaatee yaakaar naa ni bés bu yàlla sàkk bu ñu càmbaree kenn ëppale wuñu ci waaw kenn ëppale wuñu ci loolu nag tax na vraiment war nañoo soññaat suñu bopp war nañoo jógaat war nañoo laxasaayuwaat ba li nga xam ni mooy eh, li borom xam-xam yi ak ñi féete ci kër docteur nee nañu loolu dong moo mën a tax Euh, euh, mbas mi du tasaaroo wànde du dal nit ñi mooy respecter les mesures barrières respecter mesures barrières nag dara jiituwu ci set d'abord ni ñu ko waxee raxasu beeg saabu yi ci kër yeeg jataay yépp baax na takk masque yi aussi war nañ koo def jor euh, alcogel fenn fu ci ne ñu di ko jëfandikoo fu ñu mm, toll loolu daf ñoo war loolu ay mesures individuelles la waaye day am action yu nga xam ni communauté bi moo koy moo koy moo koy moo koy porté bu ñu nee marché Ocass nag ab communauté bu rëyee rëy la ndax jaaykat yaa nga fa wande ñiy dugg si di fa ñëw toujours ña nga fa transporteur yaa nga fa yeneen acteur yeneen acteur yeneen acteurs la fay daje bari na bari bu nga xam ni kon communauté bépp bépp di fa intervenir di fa ñëw alors ñooña la ñuy mobiliser mais kenn ku nekk ñi ko Mor waxee ci taxawaay boobu ñu am mission bu ñu la dénk bu ñu la sas bu nga xam ne mooy tax la ñu fay def vraiment mu jàppandi. Euh, comme niñ ko waxee je pense que li ñu ciy wax du du ko tax a bëri noonu def nañ ko fi defaat ko fi euh, donc benn répétition la ci loo xam ne jiitu woon na fi ci première vague bi ñu ñëwaat ci deuxième vague bi euh, war ko tàmmaliwaat je pense que kon importance bi moo junj na ko également sëñ alaaj ñang junj na ko ci li nga xam ni mooy njëriñu set ak gannaaw ba ñu nettoyé ba pare aussi njëriñ li nga xam ni mooy désinfection bi am na ko ci je pense que kon euh, li ñu ciy wax rek mooy effectivement kon service d'hygiène taxaw na ci ci wàllu woowu euh, déjà tàmmali woon nañ ko sax bu yàgg ak gaaru ceer yi marché Ocass déjà jotoon nañ ko tàmmali waaye am loo xam ne moo ñu téye woon je pense que après dinañ ci ñëw euh, waxtaan ceeg ñoom moo rakki responsable yi pour mën a continuer li nga xam ni moom mooy activité bi mais nañu xam ni loolu moom njëriñ rek lay doon déjà buñ xoolee première vague bi bokk na ci bi ñu gisee ni transmission bi dafa bëri woon marché Ocass Euh, bi ñu fa defee ay jéego yu am solo dem fa demaat fa dañ gis ni finalement vraiment am na am na njëriñ euh, mu am benn rupture ba nga xam ne yeneen bërëb bi sax nga doon bëre après looy dégg ndax ñun fi ñu koy xamee mooy lu ci gën a bëri ñuy jóge côté marché Ocass centre 28 euh, de centre centre de santé 28 bi la ñuy faral di demee consultation alors au début dafa amoon bëri na trop ay cas yoo xam ni foofu la daan génnee mais bi ñu fa defee ay jéego defaat fa ay jéego finalement mujj na dem ba centre boobu stable. nga xam ne yeneen jéego yi finalement benn deuxième première vague bi doon demee bay wàññeeku ci yeneen gox yi lañ ko doon gis mais nekkuloon foofu kon wane na ni liggéey boobu liggéey bu bu am solo la euh, ñu war ci gën a jàppalante ci euh, euh, vraiment vendredi bi nga xam ni woote nañ ñun ñëpp ñu taxaw ci ñu jàpp ci mobiliser wu pour mën a def nettoiement bi ni mu waree lépp loo xam ni mbalit la ñu mën ko fa génnee ndax pompe bi moom balaa muy gën a am njëriñ dëgg dëgg dëgg mu fekk bërëb bi set waaw loolu loolu mooy li nga xam ni moo ci am solo te dana tax aussi euh, mu mën a yàgg mën a def euh, effet bi nga xam ni moom lañ ci soxla kon vraiment ñi ngi ci woo ñëpp ci ci wàll woobu euh, ki service d'hygiène moom pare na ci accompagner li nga xam ni mooy acteurs yi vraiment ci ci ñu ànd ci ci nettoyer ko ba mu set mais également bu ñu paree ñu def li nga xam ni mooy désinfection bi bu dee wàllu produit nekk na fi Euh, xanaa di leen soññ également que ni bu nee marché ni désinfection Covid la ñuy xeex naam lu ci am solo la mais aussi euh, amaat yeneen yoo xam ni mën nañ ko ci boolewaale ci liggéey boobu su ko defee loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñooy acteur lu mel na que lu jëm ci wàllu xeex mbóot yeeg xeex weñ yeeg xeex leneen loo xam ne en tout cas ay gunóor la yu mën a sonal nit ñi ci seen ay ñam yeeg yu ni mel je pense que yooyu yëpp mun nañ ko ci boolewaale mu nekk benn xeex rek boo xam ni. Euh, day ëmb lépp mën a doon mën a efficace ci wàll yëpp je que kon loolu mooy peut-être li ñu ci doon wax euh, lu ñu njëkkoon def la ci première vague bi ñëw di ko defaat ci deuxième vague warul am benn jafe-jafe ni ko aussi àlaa ñam waxee dëgg la na ñu tëj parce que mënoo di liggéey ci poussière bi muy jóg ànd ak ay doomi jàngoro ba pare nit ñi mën a tijj encore ni dañuy jaay ci kaw loolu loolu moom mënut nekk surtout ñi nga xam ne dañuy jaay ñam ndax euh, bu dee ci xayma rek dan Euh, poussière boo ci jëloon lu tuuti tuuti lu ñuy wax gramme ci wàllu poussière rek dana naan lu tollook million yu doomi jàngoro lu ko ëpp sax mi ngi ci kon loolu boo bëggee nit ñi di ci pousse di ci liggéey poussière ba la fay toll di fa jóg nga xam ne mat na ay kilos yu kilos yu poussière ay ton sax mën nañu wax kon mën nañ ni kon bul xam ñaata doomi jàngoro ñoo fay nekk loolu bu ci nit ñi bëggee boolee di ci di ci jaay euh, dafay dafay doon lu doy waar kon je pense que benn benn waxtu boobu euh, waxtu yooyu ñuy tëj ngir mën a sàmm seen wér-gu-yaram ak wér-gu-yaramu ñi nga xam ne ñoom ñooy jëndee lu ni mel euh, bu keroogee dina ko jar su ko defee ñu mën a ànd ci liggéey bi ci côté boobu donc loolu information la nag comme ni ñu ko waxee boo xam ne dañ ko war a jàllale nit ñi mën a xam loolu population bi également mën a teel laver ñu ñëw def seen dugg li nga xam ne moom la ñu soxla euh, su ko defee bis boobu waxtu yooyu ñuy liggéey foofu ñu mën a tëj ñëpp jàpp ci ñu liggéey ba ba ba pare ci guddi gi nag ñun service d'hygiène ci la ñëw ngir mën a def li nga xam ni mooy pompe bi wala sax ci ngoon si ça dépend bu fekkee marché bi tëj na ba yoon yi amuñu lenn loo xam ne danañu fa dinañu fa gêner bu naaj bi wàccee rek ñun mën nañ ñëw ndax li ñuy bañ ci pompe bi mooy pompe ko ci naaj bi boobu dafay du am effet bi nga ciy soxla dëgg dëgg dëgg waaye bu naaj bi wàccee rek su ko defee danañ mën a ñëw mën a def li nga xam ne mooy liggéey bi kon daal vraiment je pense que côté boobu euh, ñun pare nañ ci euh, après comme ni nga ko waxee ak alaaji ak yëpp dinañ xool li nga xam ni mooy moyen yi nga xam ni moom moo ciy dem am aspect technique bi carrément ci biir par rapport ak moyens yi ñu soxla ci wàllu produit yeeg ci leneen li koy ëmb yëpp loolu incha allah dinañ ci ñëw mais daal lii moom am solo vraiment lu ama am solo la te deuxième vague bi aussi comme jarul ñu ciy dellu si waat sax gis nañ euh, li nga xam ne doy na waar doy na waar bi mu doy waar ci ci ci ci ci vraiment ëpp doole li nga xam ne mooy première passage bi waaye nañu nañu gëm ni rek nañu defoon bu buñ ko defaatee ñëpp taxaw ci booleek ak ñaan yi incha allah dañu koy mën a dañ koy mën a xeex te loolu lu ñu gëm la que ni euh, méthode yi buñ ko continuer di ko appliquer euh, defaat suñu programme bi comme ni ñu ko defee woon jaar marché Ocass continuer waat encore ci yeneen marché yi dellu si waat encore incha allah léegi ci ay fan ñu gis ni euh, mbir mi dana wàññeeku ba ñu xam ni kon ndekete jël nañ suñu suñu suñu ndam ci kaw ci kaw li nga xam ne mooy feebar bi donc daal loolu lañ ci doon échanger incha allah. ñun pare nañ service d'hygiène ci accompagner li nga xam ni mooy activité bi ak euh, fépp foo xam ni euh, dañ koy continuer aussi comme ni nga ko junjee woon sànq gaaru ceer yeeg fu mu mënti doon fu mu ci mënti am rek ñun incha allah ñu ngi ci pare pour mën ci accompagner ak euh, xalaat aussi boo xam ni soxla nañ ko ci aussi ñu pare aussi pour mën ko partage ak ñëpp ñu sottante si xalaat pour xool nan lañ koy mën a amalee ba mu gën a rafet incha allah jërëjëf. di sof tuuti rek ci lim daaneele ndax ñun Baay Faal lañu sëñ Falum sëñ Mourou Aminta dani dañoo am daayira bu waaw boo xam ni murit laa woon waaye nee génn nga sëñ bi daa waroon na génn nga sëñ bi warul woon génn nga lépp ak sëriñ bi génn nga kon mooy li sëñ Abdou muy wax sëñ Mor ma ñëw nag ci turu président Idika mi jiite gaaru ceeru Touba Ilipoor la ñu waxante woon ak yow ci préfecture bu Mbàkke waxaat la ko fii ci commune bi defe naa samedi ñun bale nañ garage ba samedi bi passé lañu waxoon nag mooy li ngeen mujj a wax ci peut-être kees gi ñu demande woon pour ñu am fu ñuy def mbalit ba mbalit duutu daje ca gaaraas ba bale nañu samedi mais mën naa ni bale ba boo ko xoolee tam sero la parce que mbalit ma ma nga fa bien vrai que amoon nañ benn oto commune maa doon wër di wax nit ñi li ñuy bale tey nañu fexe ba sotti ko ci oto bi mais dañu am ñaari stock mbalit yoo xam ni peel rek moo nu mën a dimbali jële ko fa pour ma jàppaat bis nag du yomb xam naa ni faaw ma demaat ba ci kilifa gi mu ah waaw bale naa samedi mais mba mais la taxoon may wutlu poubelle bu ñuy def mbalit mi ba tey ma nga fa dañu am ñaari stock mbalit yoo xam ni faaw peel la ñuy am ak camion ñu tonni ko ba pare buñ ko tonnee ba pare nag comme dégg naa la nga demandé kii nan la ñuy def ba am ko ñun ca gare ba suñ ko fa amee mbalit duutuñu sonal ñun bu soobee yàlla parce que fexe ba créer benn équipe boo xam ni dinañu saytu ñii tuur mbalit mi ba tax mu def fa stock ñuy yóbbu mbalit mi ci poubelle boobu wa illaa kuñ ci jàpp dinañu jëflante ak yow loo xam ni bu soobee yàlla duutu am mais ñun samedi moom bale nañu la ñu bale it wax dëgg yàlla commune joxoon nañu oto la ñu bale samedi lépp def nañ ko ci oto ba tuuri nañ ko mais mbalit mi ñu doon sotti ci ñaari côté yi ba am mu ci dépassé mbalit mi di wàcc ba jël benn trottoir bi aussi tonniwaat nañ li nga xam ni moo nekkoon ci kaw tali bi mais am na sax toilette yoo xam ni bu ñu tonnee mbalit moomu dañuy sa ubbi ko parce que ñàkk a ubbi toilette yooyu moo tax foofu doon yoon woo xam ni ñiy liggéey guddi ak ñenn ñi di ko di ko di ko sotti ba ba mu ba mu dépassé bay ñëwaat ci kaw tali bi kon daal wax ji loolu rek la programme sensibilisation bi aussi chaque jeudi maa ngi ci prévention routière di ko wax jàpp nañu datit pour dem garage daaru Mousse ak garage daara pour defa sensibilisation bi pour que ñu respecte mesures barrières yi mais suñu yitte daal mooy peel bu ñu toonnee mbalit ma fa ne ak kees goo xam ne mbalit duutu fa jale loolu nag li sëñ bi wax ci xaj na ni ngeen di doxale temps yi mu ni rafetlu na ko man aussi rafetlu naa ko parce que ba ñu dajee Mbàkke la ma demandé wax nga ma ni ma di nga ci jël courage à deux mains pour fexe nu mu amee bi nu ñëwaatee fiit bi ñuy génn nee nga ma fàttewuma li ngeen waxoon kon ñoo ngi doole di fàttaliwaat daal ñu xam ni garage moom kuy setal fa nga war a jëkke ndax gan guy ñëw fa ngay wàcc boo ñibbi fa ngay duggewaat jërë ngeen comme hygiène la ñu wax ak set ñu lu mel ne marché ni mu xatee lu toll na oto oto vidange di ñëw bëccëg nit ñi toog heure añ wala heure heure naan ataaya oto yi toog sa kanam di vidé te mënoo koo joytu fenn te foo ko wàññil la yoroo kàddu gi exemple mooy oto vidange yi ñëw marché euh, euh, mooy mooy oto délégué rek man toujours ko ko ba jël dem bi fi waa service de la vrat ba wax naa ko mun ma loolu faut maire moo ci a jël décision léegi nag marché bépp xam ni bëccëg du heure vidange surtout bu dee marché oto mbal aussi li ma jàpp mooy Sénégal rek ngay gis bëccëg nit ñi di liggéey marché oto mbalit ñoo di baare am mbedd di jël mbalit te guddi gi bu leer la yaa guddi kenn nekku fi ba jàpp ni nettoyé marché ak vide marché guddi la gën a yelloo pas bëccëg loolu nag bëggoon naa kilifa jot yu baax ba xam di sell ci mën a ndax ndax moom la ñëpp di jooy jooy ci marché bi di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi sant bu sa nekk fi tey ak Alla Niang ak Mor mi nga xam ne ñoo organisé kii jataay bi di wax nag ci kàddu soxna su Mbàkke mi nga xam ne moo jiite organisation de la femme ma bokk ci kuréel googu mu yebal ma fi di waxoon na ma sax ne ma mi ngi ñëw may waxit ci bàjjanu gox yi di wax ne bàjjan convoqué woon na leen bëkk démb bi ñu fi jógee ba wax ko li fi jëlee joxoon nañu tam juróomi junniy maska wax ne dinañu ko séddale ak saabu yu bari ak eau waaw tey ji am na leneen lu mu ci dolli ñu ngi xalaat nag ndax bañ jotaay bi ngeen wax ñu xalaat joxe ko ci alxemes bi ba séddi àjjuma ñu ngi xalaat ci loolu yaakaar naa ne lu ñu ci mën a def bàjjen dina la woo yow ak àll ñang ngeen def ci seeni xalaat ndax dañu tam dañuy bañ convoqué mbooloo mu bari mi ñuy ñëw ndax dañu ko tere mais convoqué nañu hôpital yi nga xam ne moo ne Touba hôpital bu ne wax nañ ne dafa ñaari bàjjenu gox jógee àjjuma bi ñëw ci mbale mi waaye wax nañ ne nañu ñëw alxames jël si seen i masque ak seen i yi nga xam ne moom la leen soxna si jàppale ñuy gërëm ñëpp nag li leen sant. Euh, di wax ne. lii moom lu am solo la lii it euh, ndaw ñi ñoo ko war a def ñoo ci war a am taxawaay bu doon te ne marché la di secteur boo xam ne ñëpp dañ fay daje euh, euh, commerçant yi initié ko ànd ci ak maire bi waaye ndaw yi dëkk bit am nañ ci part de responsabilité ndax fii jamono ji toll nii kenn ku nekk xam na ne dañoo war a taxaw dañoo war a génn dañoo war a xeex ndax mbas mii nga xam ne nii moo xew jóge fi ba ñëpp delluwaat ci seen ay activité ñun nag commencé nañ liggéey bi yaakaar naa démb euh, dem nañ école sëñ Abdourahmane Mbacke bii nekk ndaam euh, yóbbu nañ fa ay gel ak ay eau de ak ay savon pour jàppalee ko élèves yi nga xam ne ñoo fay jànge ñu fa jógee dem nañ ci poste de santé bu Daaru Marnaan ak poste de santé bu Xayra dem nañ ancien garage Dakar def fay sensibilisation jox nit ñi ay masque jox leen ay gel wax leen ni ñu koy jëfandikoo muy sensibilisation bi nga xam ne nii waxoon nañ ko yaakaar ci réunion bi ñu doon def fii te dañu fas yéene continuer ko suba wala ginnaaw suba dinañ ñëwaat ci terrain bi marché Ocass nag bu ñu jógee fii dinañ communiquer ak association yi nga xam ne nii ñoo nekk ci biir dëkk bi te jege ñu wax leen ne leen nañ teel a ñëw jàpp ci mbalam marché bi waaye it moor ñu di leen ñaan euh, ñu jàpp lañu ci matériel sanitaire bi nga xam ne nii dañ ciy defee euh, sensibilisation bi ndax li ñu yoroon euh, keroog bi ñu koy jëli dakaar yow mii yaa ñu wutal oto ñu dem jëli ko. waaye bu jeexee it dañuy continuer euh, ñu jàppale ñu ci ay masque yomb na ak ay gel nga xam ne nii dañu mën a continuer liggéey boobu ndax kat nit ñi boo leen woowee dajale leen ba ñëw te amuñu lu luñ defit loolu amul njariñ bu doonte ne ñett wala ñeent ñoo koy def waaye nañ yor loo xam ne nii dina jëmmal teewaay ñu teew ba nit ñi mën a xam ne ñii kat liggéey bi ñu def am na solo ci liggéey ba euh, bu ñu mënee am matériel yi nga xam ne nii mooy matériel léger yi lu mel ne ay râteau ak yooyu ak ay balai nañu ko programmer ndax am na ñoo xam ne comme mbir mi da leen a bett wala bu fekkonte ne sëñ bi moo wootee dañ ko mën a programmer ci kuréel lañ yor génn seen xaalis jënd ko euh, loolu day mën a nekk waaye bu dee lii nga xam ne nii dëkk bi ñoo woote euh, euh, da ngay gis mbooloo moo xam ne dinañ ñëw te duñ àndaale matériel buñ liggéey nit ñi nag ñëw te yoruñu luñ liggéey loolu amul njariñ bu ñu mënoon am ay ratu ak ay bale nga xam ne nii ku ci ñëw boo yorul matériel boo boo liggéeyee dañ la koy mën a jox leneen li ci des mooy di ñaanal rek mun Mountakha Mbacké mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaan mbas mi jóge fi ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu li ñu dajale woon mooy waxtaane mbaleetu marché Ocass mbale mbale marché Ocass bi ñu war a def fukki fan ak ñaar ci weeru février ca loolu mu jóge ci xalaat boo xam ne préfet bu Mbacké ak kuréel gi nga xam ne mooy commité de développement départemental bi ñoo ko sàkk woon ñu dajee fii ci commune bi ndaje mu yaatu xam ne médecin chef de district bi service d'hygiène ak hôpitaux yi ak commune bi ak acteur yi nekk dëkk bi yépp daayira yi gën mag muy Muqaddimatul Xidma ak Touba ca kanam ñoom ñëpp ñu woowoon leen ñu tënkaat fi bisu setal boobu ñu war a setal marché Ocass gare routière yi ak yenn ci marché yi tey nag ñu ne woon nañ daje ndaje mu xaw a yem rek ci yenn acteurs yi nga xam ne loolu ñoo ko war a jëmmal kon ci biir réunion bi commune bi àlla ña ngi nii xam ne moo yor mbiru coordination bi liñ fi wax lépp biñ tàmbalee ba léegi moom moo koy wéel ñun danañ topp ci moom xam naa ne fii alxemes dana leen woowaat pour que lii ñu tënk fii yépp bu bis baa ñu matal commune bi wax na ne personnel bi mu am bépp jëm ci wàllu mbalit ci wàllu assainissement dana ko mobiliser dana mobiliser aussi ñaari camion yi nga xam ne moom la am fii UCG mooy unité de coordination et de gestion des déchets wax na ne am na benn pelle am na ñaari camion de vingt mètres cubes ñu ak bac à ordure moom itam dana ko mobiliser dana xool ci personnel bi nga xam ne moo jëm ci yenn axe yi di ci bale ñoom itam ñu ci mën a sàkk pour indi leen ci bis boobu vendredi boobu service du d'hygiène capitaine baa ngi nii toog sama càmmoon di capitaine Keita ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam bu rafet ci lépp lu ñuy def ak ñu ñuy conseiller ci wàll woowu ci commune bi moom itam wax na ne lu jëm ci ay produits yu mel noonu disponible na bu ko defee bu balee ba pare ah ñu mën a pomper marché bi pour que ñu mën lii ñu bëgg jële fi mbas mi ci dëkk bi ak ci réew mi loolee mu am euh, euh, gare routière bee ñoom wax nañ ne samedi bale nañ ba pare li ci des mooy mbalit ma am na lu fa des looloo tim ñu ngi ñaan waa UCG euh, ñu jàppale ñu ci peel pour que ñu mën a tonni la fa des ci mbalit ñaan itam service d'hygiène bu ñu mënee pompe garage bi aussi looloo tim ñu def ko ndax loolu yëpp dafa dugg ci recommandation yi nga xam ne CDD bi defoon na ko mooy jigéen ñi soxna astu ñu koy sant soxna astu mu sëñ Abdou Borom dër bi moom mi nga xam ne moo jiite conseil consultatif de la femme yabal na fi amitin ak ñim àndal ñoom itam wax na ne soxna si dana génne lu mat juróomi junni masque pour séddale ko kon looloo tim ñu ko ci sant di ko ci gërëm ak i produit aussi wax na ko wax na ne aussi danañ mobiliser ñenn ci jigéen ñi pour ko bis ba vendredi ñu mën a ñëw ànd ak euh, waa marché bi liggéey bi waa marché Ocass ndax ñoom ñooy lépp ñoom seeni jàng mi nga xam ne mooy euh, responsable marché ocas bi ànd na ak euh, waa ACIS ñu ñëw ànd aussi ak marchand ambulant yi ñu ne ñëw jël ay décisions yi fortes wax ne fas yéene nañ mobiliser euh, commerce ñi nekk ci marché bi pour que bis ba vraiment ñu mën a génne mbalit mi ñu mën a participer vraiment activement ci lii ñu bëgg lii ñu bëgg a def wax na ne aussi marché bi dañ koy tëj àjjuma ji kenn du ubbi kon bu alxamesee lu waay di def na ko waajal ci alxames ji ndax àjjuma dañuy dañuy dañuy tëj marché bi wax na aussi ne ñoom seen camion bi ñu am danañ ko mobiliser ak mesures yi ñu waxoon pour euh, jënd ay wut ay masque ah, nit ñi dee raxasu nee na loolu yëpp dañ ko fas yéene continuer ci sensibilisation bi waa ACIS wax nañ mooy euh, association des commerçants et di Sénégal seen kuréel gi nekk fii Touba jël nañ kàddu wax ne ñoom danañ amal ay journée de sensibilisation ak distribution de masques ak ay gel ak yeneen produit yooyu ñu ngi koy xalaat suñu de suñu balee ba pare kon looloo tim ñoom itam mesures yooyu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ci turu ci turu monsieur le maire waa muqaddimatul xidma wax dëgg yàlla ñi leen di ziyaare di leen sant di leen gërëm ñoom itam seen taxawaay gis nañ sëriñ bi kàddu soñña yi nga xam ne yëkkati na ko euh, sàkkootim initiative bi ñu jël ci marché Ocass ak ci gaar bi ñu wéel ko ci béréb yeneen béréb yi nga xam ne ay bërëb mbooloo dafay daje wala yeneen marché yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi conseil de la jeunesse wax nañ ñoom itam seen taxawaay bi ñuy war a am ca tàmbali ko ci xeex mbas mi di euh, séddale ay masques dëkk bi ak di sensibiliser nit ñi sàkku nañu aussi commune bi jàppale leen ci wàllu produit ay yi ay produits pour ñu wéer liggéey boobu defe naa ci gàttal euh, Baye Mbaye Sarr moom mooy ndax mag moom mag lu yàgg la ñu koy gën a ñaanal mu yàgg sàkkoo tim mu ñaanal ñu waaye taxawaayam rafet na trop ci lépp lu ñuy def ndax moom mënoon nañ koo noppal waaye lépp lu ñuy def kenn mënu ko ci ca loolu lu yàgg la ca lu yàgg dëgg la euh, kon moom itam ñu koy sant di ko gërëm xam naa ne Euh, moom daal daanaka euh, mën nañ koo jébbal kàddu gi ah bu waxee ba pare sëñ bi sëñ bi ñaan sëñ bi sëñ sëñ Abdou Lahad Bousso moom mi jógee ca muqaddimatul ma ci jumaa ji ah, ñu ñaanal sëñ Touba sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool li mébét liggéeyal sëñ Touba yépp mu liggéey ko ñu ànd kook moom waaw euh, kon daal loolu laa ci bëggoon wax rek vraiment wax Alla Niang ne li ci des moom xam ngeen Alla taxawaayam ci lépp lu ñuy def moom comme def nañ nii ba kenn ku ne dégagé axe yi li ci des moom dana ko wéel yéen nu mu ci war a waxtaan ak yéen surtout yéen waa marché bi rek dana ko waxtaan ak yéen ndax lu miin la lu mu xam la lu mu sawar la loolu vraiment dama koy dama koy dama ko koy dama ko koy waxal kon daal defe naa mën nañoo gàttal ci noonu réunion bi ya rabbana salli wa sallim sarmadak ala alladi sammaytahu muhammadak ya rabbana salli wa sallim sarmadak ala alladi sammaytahu muhammadak wa alihi wa sahbihi waghfir liman yaqra'u dhan nizama fi kulli zaman وأبله جملة ما تحتار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئم بجاهه ذنوبي وأبل من يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وأبل من حفظه أو حصل بأي وجه بنبي أملا